عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه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 salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooleem waa barab bu tedd bi di Madina Tayba di ci jiital kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom lañ fekk fi suñu maam Seydi Ali Ñas ni Cheikh El Hadj Abdou Bakr Al Musanna ak Seydi Alxaaj Muhammad Zeynab ibn Cheikh Alxaaj Abubakar Almusanna ak suñu nijaay Cheikh Muhammad Almaahi ibn Cheikh Shafir ak suñu nijaay suñu kilifa Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Alxaaj Usmaan ibn Cheikh Alxaaj Abubakar Alawal di nuyu itam borom dëkk di nuyu Seydi Mouhamadul Aqib Ñas sëriñ daara mi nga xam ne moo waral jotaay bi ci góorgóorloom ak ci ay itam moom ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ak moom di liggéey ci daara ji di nuyu suñu Ñas Euh, di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi rek ci ne ci turam ak santam góor ak jigéen mag ndaw nuyoo bi gën a sell di ndokkeel sëñ daara ci bés bi di ndokkeel mbooleem waa dëkk bi di am mbégte daa iman teew fi ak ñoom ndax comme ni ko waxee woon daaw rek barab bi déngale ci déngale daara la ci daara bàyyi école la ci école yi bàyyi ñu ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ko taxawee di ko dundal ci njiital seen daraatu bu yàlla yàlla yokk leen kàttan yokk seen mën-mën dafa leen tawfiq daayima thème bi nga xam ne moom lañ joxe woon mooy ci français lañ ko bi l'aspirant à la connaissance nécessité discipline et engagement maanaam mel na ni ki nga xam ne dafay sàkku xam-xam yan góorgóorlu ak yan effort la war def ak itam yan jukko la war a pour loolu muy ut mu mën koo am bala ñoo xuus ci loolu dañuy wax ci ngëneelu xam-xam buñ paree xëy na kenn ku nekk ci ñun dana mën a peese ndax xam-xam boobu jar na engagement jar na sonne jar na ittewoo am déet ci ngëneelu xam-xam yàlla wax na ci alquran ne shahida allahu annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bilqist laa ilaha illa huwa al azizul ne yàlla seedeel na boppam amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg jaamu gay dëgg di dugal nit aljanna ñàkk jaamu gay weddi di kéefér di dugal nit safara lu may allah yàlla rek mooy yàlla yàlla seedeel na boppam itam ne moo méngoo mbooleem mbindeefam te ci maandu la leen mu ne yàlla nee na gannaaw bi mu seedee loolu bi ñu ko seedelee boppam ay malaakaam seedeel nañ ko ko boroom xam-xam yi itam seedeel nañ ko ko nga gis ne yàlla dafa laaf boroom xam-xam yi ci boppam ak ci ay malaakaam sës rek nekk ci yàlla gannaaw bu yàlla tuddee boppam tudd ay malaakaam nga sës loolu teraanga la boo xam ne amul teraanga du ko féetee kaw te ñooñ xam-xam la ko yàlla jox ba pare kaa bi nga xam ne moom la leen yàlla indi pour ñu nekk ci ay seede mooy kaa bi gën a ci àddina képp koo xam ne mat nga seede foofu rek feneen foo demee ci danga fa mat seede ndax mooy kaa bi tax ñu yónni yonent yi yàlla wax na ci suratul anbiya wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi ana faabudun amul benn yonant bu ma mës a ci lu la jiitu lu may ne li ma koy digal mooy na wax xeetami ne benn yàlla rek moo am nañ ko jàmm moo tax boroom xam-xam yi ñu ne benn yonant musta ñëw ngir wane yàlla am na ngir saxal ko ndax loolu noppi nañ ci qaalat rusuluhum afillahi shakkun loolu du werante waaye li li leen tax a ñëw ñoom ñëpp mooy tawxiid ndax yàlla yi dañoo bariwoon woon ci nit ñi kii ne yàlla yàlla ji indi taw yàlla ji indi wërsëg yàlla ji ame mbugal yàlla ji amee banneex yàlla ji am amee naqar yàlla ji amee nattu yàlla ji amee xewal yàlla ji amee asamaan yàlla ji amee suuf yàlla ne leen loolu yépp dara amu ci wa huwa alladi fi samaai ilahun wa fi l ardi ilahun yàlla bi nekk ci asamaan mooy yàlla bi nekk ci suuf benn yàlla rek ba tey ci ngeneelu xam-xam yàlla wax na ne wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi wa maa yaqiluha illa alaalimuun nee na mi ay misaal yi may joxe exemple yi may jox nit ñi ñi xam ci ñoom ñoo ko mën a dégg kon lay jugee ko ci yàlla ci ay xam-xam ci ay leer ci ay mbóot ñi am xam-xam ñoo ko mën a dégg loolu rek doy na soññi ni ñëpp ñu dem jàng ci xam-xam ndax dégg lu jugee ci yàlla teraanga la ju dul ràkku teraanga mënu koo gën a féetee kaw ci xissat yonent yàlla suleymaan alayhi salaam bi nga xamee ne bëgg naa jommal buur bu jigéen boobu ñu daan wax bilqiis balqiis moo gën a siiw mais li jub ci arab mooy bilqiis ci suuf su fekkee ne am na jigéen ju mën góor comme ni olof di wax moom moomu ci la bokk ndax fexe na ba ommat réewam lëmb ñëw indi leen ñu tuub dugg ci lislaam bi nga xamee ne yonent yàlla Suleymaan bëgg na Bilqis mu ñëw tuub si mu bëgg na ko wan xarbaax boo xam ne mooy tax tuub bi gaaw Suleymaan oo ay lëlëm ak i mbooloom Suleymaan comme ni ngeen ko xamee yàlla dénkoon na ko àddina yépp mu téye ko ci loxoom lépp lu nekkoon ci àddina yàlla tàggataloon na ko ko tàggatal na ko nit ñi ko jinne yi tàggatal ko njanaaw yi tàggatal ko njaay àll tàggatal ko lépp lépp lépp mu oote réunion laaj leen ne ayyukum yaatini bi arshiha qabla an yaatuni muslimin kan ci yéen moom ma mën a indil gàngu gàngunaayu Belqis chaise nguuram ga fii bala ñoo ñëw ndax boobu yàlla xamal na ko ne ko Belqis ma ngi waxtaan waaye dana mujj ñëw tuub si ànd ak waa réewam qaala ifritu min al jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqaamika kenn ci ponkali jinne yi ne ko man de mën naa la ko indil bala ngaa jug ci fii nga toog Suleymaan na ko loolu baax na waaye bëgg naa lu gën a gaaw loolu kenn ku nekk di wax la nga mënee qaala alladi indahu ilmun min alkitaabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ki nga xam ne moom xam-xam la am xam-xamam dafa màcc ci wàllu téere yàlla bi kooku ne ko man de bala ngay xef boo xefee bala ngaa xippi mën naa la ko indi ñu ne mooy Aasif ibnu bi mu xefee xippi rek ci la gis gàngunaay bi ci kanama loolu li tax Aasif ibnu Barxiya mën a def loolu xam-xam moo tax ma li tax Aasif ibnu Barxiya moomu mën a def kawteef boobu mu def mooy xam-xam ñaan yi nga xam ne moom la yàlla sant yonent bi sallallahu alayhi mu ñaan ko bëri na lool waaye lenn rek la ko ñaan na ko la ko sant ne na ko ñaan mu dolli ko ko mooy xam-xam bu ko ñaan yàlla mu yokk sa kàttan dara ci lu baax la ñaan yàlla mu yokk sa alal lu baax la ñàkk yàlla ñaan yàlla mu yokk la say ay fan lu baax la waaye waqul rabbi zidni ilman na ko yàlla digal mu ñaan nga koy ko ñaan mu yokk ko xam-xam loolu yépp dafay tegtale ngëneelu xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna allaha yarfau bi hada alilmi aqwaman wa yadau axarina wa inna alulamaa warasatu al anbiya nee na xam-xam yàlla dana ci yëkkatee ay nit ñoo xam ne seen démbu yëkkati kuuñu woon waaye xam-xam itam yàlla dana ci suufelee ay nit ñoo xam ne seen démb ñu màgg lañu woon ñu rëy lañu woon sàgganee xam-xam bàyyi xam-xam yàlla suufeel leen ne boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi yéen ngi fàttaliku xëy na daaw xadis boobu ñu fi waxoon xadis Abu Hurayra ba jaru ñu ci delluwaat Abul Aswad Du'ali kenn la ci saxaaba yi ku siiw la nekkoon féete Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu wax na moom itam ci njëriñu xam-xam ci ay woyu rafet alilmu zeynun wa tashrifun li saaxibihi fatlub fudita funun alilmi wal adaba kam sayidin batalin abaauhu nujubun kaanu ru'uusa fa amsa bacdahum zanaba wa xaamilin muqrifi alaabaai di adabin naalan macaaliya bilaadaabi warutaba alilmu kanzun wa zuxrun laa nafaada lahu نعم الرفيق إذا ما صاحب صاحبا قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا وصاحب العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا يا صاحب العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا nee na xam-xam taar la teraanga la tedd nga la ñeel képp koo xam ne fexe ba am ko nee na ngel la na nga fexe mbooleem fenn fànn xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy jàngale nga fexe ba am ci dara loo dajale ndax mu ne bëri na jàmbaar bëri na ku tedd koo xam ne démbam ay baayam ak i maamam ak i maamataaram ñu mag lañu woon fuñ demoon ñoo fa daan nekk ay njiit waaye moom bi ñëwee fu dem rek moo fay gën a suufe moo fay féete gannaaw te ne loolu li tax mooy ay maamam ak i maamataaram xam-xam moo leen yëkkati woon moom nag mu sàggane loolu nga xam ne moo yëkkati ay maamam ak i maamataaram yàlla delloo ko gannaaw bëri na koo xam ne itam booy konte ay maamam démb amut lu lu am solo loo mën a tudd waaye tey ñëpp ñu ngi koy teg bët di ko joxañ te loolu xam-xam moo ko ko jox mu ne xam-xam mbell la trésor la boo xam ne dañ ciy dépensé wu te du jeex képp koo xam ne sa xam-xam mooy sa àndandoo nee na yow yaa am xam àndandoo bi gën ci àndandoo yi ndax su dee alal la nit ki yaakaar pour tedd nee na nit mën naa dajale alal ba mu bari am lu ñëw faagaagal alal jooju yépp mu jeex su fekkoon ne alal a taxoon ñu koy caral mën nañ koo toroxal la taxoon ñu koy yëkkati mën nañ koo suufeel la taxoon ñu jiital ko mën nañ koo delloo gannaaw waaye nag ki nga xam ne moom xam-xam moo tax ñu jiital ko nee na dafay kanam la jëm ndax xam-xam noo ko gën a dépensé loo ko gën di joxe rek yàlla di la ko gën a yokku ki la ñee ndax sa xam-xam dafay dañ di la ñee ndax xam-xam nekkul loo xam ne luy jeex la daa iman dafay yokku la mu ne yow mi nga xam ne yow la yàlla dimbale nga bokk ci ñi sàkku xam-xam bu dara jaral nga bàyyi loolu bu ko alal jaral bu ko urus jaral ndax xam-xam mën na laa may urus mën na laa may xaalis te xaalis mënut laa may xam-xam pàcc bu njëkk bi ci thème mooy engagement alhamdulillah allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu ngi tolloon ci première pàcc bi nga xam ne mooy wax ci engagement engagement mooy nit ki warloo ak boppam digganteem ak boromam ne objectif bi laa bëgg a atteindre fii laa bëgg a àgg du ma du ma sonn du ma yokkat du ma bàyyi fekk àgguma foofu te loolu jàngkat bu nekk daf koo soxla ndax boroom xam-xam yi ñooy wax ne al ilmu ida aataytahu kullaka aataaka baadahu ne xam-xam danga koy jox sa lépp mu jox la lenn xam-xam farlu mooy tax nit am ko góorgóorlu nango tegoo ay coono yu méttee méttee métti mënta ñàkk ci kuy jàng fekkee ne danga koo cof jël ko ak tayal su boobaa du la jëriñ doo jëriñu waaye soo ko jëlee ak farlu jël ko ak bëgg ak xër dana la jëriñ te da nga jëriñ keneen ku dul yow itam loolu la yàlla digaloon yonent yàlla yaxya ne ko yaa yaxya xudil kitaaba bi quwwa yaxya amul téere li wér mooy ne yàlla wàccewut ci moom téere mais yàlla daf ne ko tawraat bi nga xam ne moom lañ yoon wàcce woon ci yonent yàlla Musa demal nga jàngi ko nga goreel ko rafetal ko xam li ci nekk yépp ci ay atte jàngal ko saw xeet moo tax am na benn waykat bu daan way aaya boobu وعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة nee na na nga tëju jël say téere jàng bu la dara itteel ci àddina lu may xam-xam su boobaa da nga am li nga xam ne mooy tiitaru yonent yëpp li ñuy tiitaroo mooy xam-xam soo ko bëggee am da ngay fagu da ngay fagaru wagu dem uti ko bàyyi loo xam ne duwut xam-xam nga bàyyi ko gannaaw ba am xam-xam ba pare beneen waykat nee na mabyadda wajhun biktisaabi karimatin xatta yusawidahu suxubun matlabi maanaam nit mënta am mukk ci xam-xam loo xam ne dañ koy joxoñ baaraam naan borom xam-xam sàngam mu nga nele lu may ne dafa daj ay coono yu métti an naimu laa yudraku la arab wax maanaam noflaay duñ ko amee noflaay boo bëggee noppalu ëllëg tey ngay sonn boo bëggee nekk boroom xam-xam ëllëg tey ngay jàng boo bëggee sax noppalu àllaaxira ci àddina bi ngay ngay ngay nañ daan peese nit ñi bu njëkk ci jamono yu njëkk ba jamono yu baax mooy xam-xam ak jikko Seydina Ali ibn bi Talibin wax na ne annaasu aalimun rabbaaniyun wa mutaallimun ala sabili najah wa hamajun raaun atbaaru kulli naab nee na nit ñi daal boo leen seet ñetti xaaj yi rek lañ boroom xam-xam boo xam ne yàlla rek ko ñor ndax xam-xamam yóbbee na ko ci ne lu dul yàlla amul njëriñ ak jàngkat boo xam ne àggagut foofu waaye fa la jëm mutaallimun ala sabili najah bu saxee ci yoon boobu fa la mu ne bu de weesoo ñaar ñi ñi des ñëpp ay xuus ma ñàpp la ñoo xam ne ku jug oote rek ñu jug topp la féetewuñ fenn waxaat ne moom Seydina Ali radiallahu anhu te Ali bi wax mooy kan mooy ki bi sallallahu alayhi wa jàngal mooy ki bi wax ne ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha man maay dëkku xam-xam maay njënd xam-xam aliyun mii mooy buntu ba kon waxam lépp lu la wax rek duut bànneexi bakkan li muy wax mooy lim ci yonent bi sallallahu alayhi wa ko ci njubi ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci way ne annaasu min jihati tamsili akfaau abuhumu aadamun wal ummu hawaau nafsun ka nafsin wa arwaxun mushaakilatun wa acdumun xuliqat fiha wa acdaau وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأحساب أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء nee na nit ñi soo leen di peese su fekkee ne ci seen wàllu cosaan nga leen di peese su boobaa na nga gis ne ñoom ñëpp a ndax ñoom ñëpp aadamu mooy seen baay wa mooy seen yaay kon distinction ràññeeku munta amee foofu ñoom ñëppay am ci côté boobu distinction ak ngëne ngënele mënta am ci wàll mbind ndax ñoom ñëpp ci ndox ak ban lañ jugee ñoom ñëpp ku ci nekk benn bakkan nga am benn roxo nga am benn xol nga am yàlla nee na maa jaala allahu maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fii jawfihi man yàlla defaluma benn nit ñaari xol ci benn dënn kon gëneel mënta amee foofu fi gëneel di amee mooy ci xam-xam mooy ci ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla leena ki gën a tedd ci yéen ki gën ci yéen mooy ci gën a ragal yàlla te ñi gën a ragal yàlla ñooy boroom xam-xam yi loolu itam yàlla ko wax innama yaxsha allaha min ibadihi al ulamaaw kon ngëneel dëgg dëgg dëgg ñooñ xam-xam ñoo ko moom ñooñ xam-xam mooy ki jàngale ak kiy jàng ndax ñoom ñooy tegtal nit ñi yoonu njub bu lëndamee ñoom ñooy biddiw ak jant yi ak weer yi nga xam ne ñooy leeral ñooy tàggale diggante dëgg ak nar ñooy wan nit ñi li nga xam ne lu sérieux la ak li nga xam ne mboosoor la caaxaan la ñooy indil nit ñi ay solution ci seeni problème ci wàll diine bu ñu amee lu ñuy laaj ci seen diine ci boroom xam-xam la dem buñ amee problème ci seen société ci boroom xam-xam lañuy dem buñ amee problème ci seen économie ku xam-xamam màcc ci wàllu économie lañuy dem buñ amee seen ay problème ci wér-gu-yaram ci médecin ba lañuy dem mooy ki xam-xamam màcc ci wàllu wér-gu-yaram Seydina Ali mu ne nag kon yow ngeen la fexeel nga am xam-xam buy jëriñ boo xam ne danga ko goreel dem ci xarit su boobaa feeg yaa ngi dund xam-xam boobu mooy nekk sa teraanga boo demee ba jugee fii itam xam-xam boobu xam-xam boo demee ba jugee fii itam xam-xam boobu mooy des ñu la koy fàttalikoo di la tuddee ba bés am na boroom xam-xam bu mag buñ naan Yusuf ibn Nahwi at-Tilmisani at-Tuzari amoon qasida bu siiw bu ñu tuddee al-Munfarida al munfarida xasida la boo xam ne sufiyanke yi fonk nañ ko lool rawatina sax ci tariqa tijaaniya bari na ci kàngami tariqa bi ñu ci wax ku mel ni Sukayri wax na ci danañ ci wax ci ngëneelam ne ku nekk ci naqar nekk ci tiis nekk ci jaaxle bu ko jàngee yàlla dana ko teggi loolu mu ngi ko commencé istaddi azmatu tanfariji qad aadana layluki bilbaladi وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج ca biir qasida ba ma nga naan te moo tax ma koy wax wa xiyaarul xalqi hudaatuhumu wa siwaahum min hamajil hamaji ba tey mooy li Seydina Ali ibn Abi Talibin waxoon rek nee na booy seet ñi gën ci nit ñi demal seeti borom xam-xam yi nga xam ne ñooy gindi nit ñi di leen wan yoon xamal ne ñooñu ñoo gën ci nit ñi ñu dul ñoom gënuñ kenn dañu nettali ne dafa am benn jigéen ci jamono imam malik bu musa xuloo ak jëkkër gi xuloo bi metti mi na ko toppal fale li ngay ñàkk fayda te doye jëkkër gi na ko sudee dama ñàkk fayda dama doye di comme ni nga ko waxee loolu mooy sa fase ñu uutee ndax sëy bi tas na wala tasut ñu ne déet say weerante ci say bu tas ak bu tasul te imam malik nekk fi jaru ko nañ dem ci imam malik ñu dem ci malik wax ko ni yëf yi demee imam malik ne in kaana aaliman aw kaana taaliba ilmin fa laysa bi safihin wa fa huwa safihun mu ne leen su dee jëkkër ji borom xam-xam la kon ñàkkut fayda waye diwut su dee xam-xam waaye mu ngi ñàkkut fayda wayadi wul su dee du benn ci ñaar yooyu nag su boobaa ku ñàkk fayda la ku wayadi la nga déggee ci la imam malik waxoon moom ne ma jalastu safihan qat musumaa toog ak ku ñàkk fayda musumaa toog ak ku dese ndax dundam yépp ñaari période rek la bi mu waree jàng dafa dem toog jàng bi mu paree ci jàng dafa dem di jàngale bi mu génnee àdduna amatul amutoon beneen liggéey lu dul loolu loolu imam malik wax cheikh ibrahim radiallahu anhu itam loolu la wax maa qattu jalastu safihan wala ma ashab siwa fuxuli qawmin ulama bàyyi nee na musumaa toog ak ku ñàkk fayda musumaa toog ak ku dese musumaa toog ak lu may ay ponkal ay kuy yoo xam ne ñëpp ay borom xam-xam lañ buñ toppoon texte yi nga xam ne ñoo rot ci wàllu woowu du fi xaj te yépp li muy junj nit ñi lañ daan leen daan qualifié bu njëkk li leen peese mooy ci xam-xam ak ci jikko xam-xam ak jikko nag góorgóorlu moo koy maye comme ni Baye wax al fatxu fatxu kitaabe seydna al imam muslim borom saxiix muslim wax na ci biir saxiix bi na laa yunaalu al ilm bi raxatil jism nee xam-xam noflaay du ko maye ku bëgg xam-xam dafay sonn bokk na nag ci gaaf yi sàkku xam-xam lii dal jàngkat yu bari ci seen biir jàng te mooy dem ba yàgg nga sonn yokkat xalaat na lii kañ lay jeex de dee daara ji kañ lay génn daara ji kañ lay pare ci jàng xëy di jàng gont di jàng lii kañ lay jeex loolu dafa laaj am ku pare ku nekk ci sa wet ku lay dimbale sinon mën naa yàqal jàngkat lu bëree bëree bëri te mën naa dal jàngkat bu nekk coono boobu mu ciy daj mënta ñàkk mukk pour mu am li nga xam ne moom la bëgg ëllëg shaa'ir bi wax na ne yuriduna idraka al ulumi raxisatan wala budda duna shahdi min ibari naxli ku bëgg lem ku bëgg lem di ko jaay kooku ñu ne ragal yam bu waru ko ndax ku bëgg akara dafay ñeme kaani te boo méngalee diggante coono noflaay bi nga xam ne moom ngay am ci ñàkk bi ngay ñàkk jàngi te noflaay bu gàtt la bu say morom xëyee dem jàng yow yaa ngi tëdd di nalaw yaa ngi tëdd di yaa ngi ci lu la boo ko comparé ak noflaay bi nga xam ne moom la la xam-xam mën a jox comparé koy itam ak coono bi nga xam ne moom la kuréel bi am su boobaa da nga xam ne dëgg-dëgg xam-xam ak lu dul xam-xam mënuñoo tolloo xam-xam ak réer mënuñoo tolloo qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuuna waaye nag yàlla lim ci teg mooy innama yatadakkaru ulul albaab ñi am xel ñoom ñooy xalaat xam ne xam-xam moom mënta em ak lu dul moom ki am ki soxla xam-xam dafa war a àgg ci engagement fi waa ji waxoon ne tahunu alayna fi lmaali nufusuna wa man yaxtu bilxasna alam yuglihi lmaxru ñun bu ñuy ut xam-xam bu ñuy ut mbir yi nga fàgguteef yi nga xam ne ñu kawe la nee na suñuy bakkan dootu tekki dara ci suñ kanam daf ñuy jaral dee ñu am combat ñu dee rek nee na wa man yaxtu bil xasna alam yuxlihil maxaw ki dem seet ki gën rafet ci aw dëkk miis ba wala lu demee noonu mu ne kooku la bëgg a takk nee na kooku facture ba lum cher cher cher war na war la koo jaral dangay ngay ñeme sa projet ki yàlla njëkk xamal ne xam-xam mënta ñàkk coona mënta ñàkk góorgóorlu mooy aadam alayhi salaam yonent bi moo ñu nettalil sallallahu alayhi wa sallam ne lamma xalaqa allahu aadama qaala lahu idhab ula ila ila ulaika annafar wa hum nafarun min almalaikati julusun fastamic maa yuxayyuunaka fa innaha taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika mu ne yàlla bi mu bindee aadam def na ko gis nga mbooloo male toog mu ne ko waaw mu ne ko demal ci ñoom nga dégg nañ lay nuyoo nga jàpp ko te xam ne mooy sa nuyoo mooy sa nuyoo njaboot yonent bi ne mbooloo ma ko yàlla junj ay malaaka la woon ñu toog aadama dem ci ñoom fa qaala assalaamu aleykum fa qaalu wa aleyka assalaamu wa rahmatullah fa zaaduuhu wa rahmatullah mu dem na leen assalaamu aleykum ñu ne ko wa aleyka assalaamu wa rahmatullah ñu yokkal ko wa rahmatullah nga yàlla mi ko xamal assalaamu aleykum mënoon na ko cee tegal wa rahmatullah te du ci demante fenn waaye mu koy jàngal xaat ne xam-xam pour nga ut ko dangaa war a jug dem fekki ko danga war a jug sonn xam-xam dañ koy sàkku doon ne mooy sàkku ki doon julli ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julleem gi baaxul mu julli yonent bi ne ko salli fa innaka lam tusalli julli julli waatal li nga julli baaxul mu jugaat julli yonent bi na ko julli waatal li nga julli baaxul ba muy ñetti yoon waa ji na ko man nii laa mën jàngal ma ni ñuy jullee yonent bi soo koo jàngal yonent bi nga xam ne mooy xaamilu shariati moom la yàlla yónni ne ko demal nga xamal nit ñi mënoon naa jàngal waa ji ca ku njëkk ba njëkkee juum rek na ko nii nii la ñuy jullee waaye defut ko daf koo xaar ba waa ji laaj ko ne ko man mënumaa julli jàngal ma ni ñuy jullee mu soog ko koo jàngal loolu yëpp daf lay wan ne xam-xam lu ñu war a sàkku la lu ñu war a góorgóorlu la daj ci coona pour mën boo demee ci saxiixul buxaari da nga ci gis baabun wala baabu ma dukira fi dahabi Muusa fi lbaxri li ila alxadiri alayhim assalaam bunt boo xam ne ci li muy wax mooy tukki bi yonent yàlla Muusa tukki dem ci géej gi pour dajeeg xadir te li muy dajeeg bi li gudd gudd yoon wi la muy gudd gudd ñetti masala la jàng ci xadar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey nettali na ne baynama Musa jaalisun fi mala'in min bani israila ja'ahu rajulun fa qaala ata'lamu ahadan hal ta'lamu ahadan a'lama minka qaala Musa la mu ne Musa dafa toog ci mbooloo ci bani israil am góor bu ko ndax xam nga kula raw ci àddina tey musa ne ko déedéet xaw ma ko yàlla ne ko ankay ah, am na sama jaam bu tudd Xadir boo demee ci moom danga fa fekk loo xam Moussa laaj yàlla ne ko lan laay def ba dajeeg Xadir moom yàlla jël aw jën def ko muy kawtee fa ne ko dangay ngay ànd ak sa dangay ngay dem dugg ci géej gi tukki yóbbaale jën wi eel boo demee ba gisatoo jën wi rek dëppal da nga dajeeg xadar da nga dajeeg ki ma lay wax yonent yàlla Moussa o jarbaatam biñ naan Yusha ibnu Nun ne ko laa ukallifuka illa an tuxbirani bi xaytu yufaariquka alxuut qaala maa kallafta kathiran mu ne ko santuma la dara ci yoon wi lu may jën wii saa yoo demee ba gisatoo ko rek nga wax ma mu ne ko de moom méttiwul mën naa daal di takk seeni bagage dugg ci géej gi di dem biñ demee ba àgg ci ab saxara benn montagne ci biir géej gi coono jàppuleen ñu weer seen bopp ci montagne wi far nelaw fiñ nalawee ci la jën boo rëcc dugg ci ndox mi Yuusa moom bi jën bi rëccee ba dugg ci ndox mi gis na ko waaye def na Muusa ak coono yim daj yëpp wax dëgg yàlla yërëm naa ko du ma ko yee damay bàyyi ba mu eewu ma wax ko ko bi Moussa eewoo rek ne ko nañ continuer si yoon moom mu fàttee wax Moussa ne ko jën rek rëcc na ñu continuer seen tukki biñ demee ba tukki bi yàgg te Moussa gisul dara Moussa ne ko indil ñu luñ lekk ndax ñun kat suñ tukki bi moom coono ñu ci daj doy na waar lool aatina gadaana laqad laqina min safarina hada nasaba yusha'u soog a fàttaliku ne ko araayta id awaynaa ila saxarati fa inni nasitu lxuuta wa ma ansaaniihu illa shaytaanu an adkurahu fattaxada sabilahu wattaxada sabilahu fi lbaxri ajaba qaala dalika ma kunna nabgi wartadda fartadda ala athaarihima qasasa mi ne ko biñ fàtte rey ma biñ nekkee ca montagne ba dina law booba la jën war a cóon waaye seytaanee ma fëkk ba tax fàttali ma la ko ba ba nga eewoo dama laa ne ee bi nga eewoo ma fàtte ko Moussa na ko déet loolu lañ bëgg ñu daal di dëpp jëmi ca saxara ba ca montagne ba nga xam ne fa lañ doon nalawee fa la jën war a ci woon biñ demee ba àgg ca montagne woowa rek ci lañ dajee xadiru yonent bi ne fa kaana cha min chanihim alladi qassa allahu azza wa jalla la ca xew ca seen diggante mooy li yàlla wax ci alquran ñetti masala la ko jàngal ndax dugg nañ ci commencement bi ci ab gaal bu leen yóbbaale wala bato xadar benn ko Moussa ne ko lu tax ngay bënn gaal bi dem nañ ba mu yàgg ñu daje ab xale xadiru rey ko mu ko lu tax ngay rey kii te la dara dem nañ ci ab dëkk ñu bañ leen a ganale bañ leen a teeru xadir gis fa ab miir bu daanu mu jël ko tabaxaat ko mu ne ko dëkk bi nga xam ne ñëw nañ fi nang ndox sax nanguñ ñu ko jox lu tax nga leen di tabaxal ñett yooyu la ko leeralal ne ko nag man ak yow mënuñoo ànd demal ma dem imaam ibnu xajar bi mu indee xadis bi ba pare ci fathul baari daf cee commentaire ne hada albaabu macquudun liltargibi fi ixtimaali almashaqati fi talabi alcilmi li anna maa yugtabatu bihi tuxtamalu almashaqatu fihi ولأن موسى لم يبلغه لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم mi ne bunt bi dañ koo def ngir xemem loo nit ñi ci sàkku xam-xam nangoo toggoo ay coono ci sàkku xam-xam ndax mu ne loo xam ne soo ko amee ñëpp ñeele ci war ngaa fexe sonn ci pour am ko te mu ne muusa mi nga xam ne càng su dee ak càng rek la dayoo ba ca gën a kawe àggoon na fa ndax nabiyu yonantu la ci ulul azmi la bokk juróom yonant yi gën a fort ci yàlla ci la bokk moo nekkoon borom jamono tere terewu koo dem uti xam-xam nee na su fekkoon ne ak càng dana tere dem uti kenn xam-xam konoon Moussa du ko dem uti xatibul bagdaadi moom itam commentaire ci ne walaw irtafaa an altawaaduci li maxluqin axadun li sumuwi manzilatihi la sabaqa ila dalika Moussa falamma azhara جد والاجتهاد والانزعاج عن الوطن والحرص على الاستفادة منه للوصول إلى ما هو غائب عنه dalla ala annahu laysa fi lxalqi man yaalu ala hadihi lxaal mu ne su fekkoon ne nit dana àgg ci kawe foo xam ne dootoo so dootoo suufeel sa bopp ci ron kenn ngir sa yëkkati ko ak sa daraja ju kaw mu ne konoon mu konoon moo gën a yell ci loolu waaye biñ gisee ne Moussa xam-xam jaral na ko mu farlu jaral na ko mu góorgóorlu jaral na ko mu bàyyi dëkkam jaral na ko mu def effort yim def yëpp ngir mën a àgg ci xadir moom nga xam ne yàlla wax na ko ne ko boo demee da da nga ci moom xam-xam boo xamul nee na loolu ñu gis ci Moussa mooy wane ne amul kenn ci kaw suuf amul kenn ci benn mbindeef boo xam ne mën nga paase fooy suufeelee ci bopp pour ut xam-xam ci koo xam ne moo la raw walla xam na loo xamul Moussa moomu nga xam ne moom la yàlla wax ak deyaale wax ak moom mu dégg kàddu yàlla Moussa moomu nga xam ne moom la yàlla bindal tawaat ak loxoom bu tedd sagam moom moo mun a àgg ci engagement fu muy waxee ne laa abraxu xatta abluga majmaa al baxrayni aw amdiya xuquba du ma bouger du ma dellu sama dëkk mukk fekk àgguma ci majmaa al baxrayni daje xadar bu bu bu laajee ma toog ay at du dellu si waat jaral na ma ko sagam Moussa mi yàlla wax ak moo àgg foofu ci engagement kon kon ñun ñi nga xam ne yàlla àgguñ foofu yàlla waxut ak ñun ñun ñoo gën a yeey ci am engagement boobu boo demee ci qissatu islaami abi darin al xifaari danga ci gis beneen dars moom itam ci engagement abu darin mooy nettali ne xarajtu min xifaara maa axi unaysin wa ummuna maanaam moom ak yaayam rakkam unays ñoo génnee seen dëkk rifaar jëm màkka biñ demee ba seen màkka am na fu ñu wàcc rakkam unays na ko xaar ma fii utuma ci sama yaay man damaa am soxla màkka maa ngi dem te ñëw mun na ko demal ñëw unays su dem abu zarin nee na unays yàgg ak man lool ñëwut bi mu ñëwee ma ne ko yow ci loo nekkoon boobu ba léeg Unays na ko laqiitu rajulan bi makkata yazumu annahu rasulullah dama faa fekk ab góor boo xam ne ci màkka dafay oote ne yàllaa ko yónni Abu Darin na ko lu nit ñi wax mu ne ko nit ñi de dañoo uute ñii ne nañ saaxirun kaahinun shaa'ir ñii ne nañ jabarkat la ñii ne nañ buxaaba la ñeneen ñi ne nañ ab shaa'ir la ab waykat la fekk unees moom shaacir la woon unees tegal ko ci ne ko wa laqad samictu qawla alkahanati fa ma huwa bi qawlihim wa laqad wadactu qawlahu ala aqra'i shucaraa'i fa ma yaltaimu ala lisaani axadin annahu shicru mu ne ko xam naa njabarkat yi seen jat yi ñuy jatee xam naa ko bokk teg li waa ji di wax xam naa waxi bu xaaba yi du seen wax xam naa way peese naa ko ci mbooleem peesekaay yi ñuy peese woy waaye kenn ku xam woy mënta taxaw ne alquran di waa ji di wax woy la wallahi innahu la sadiqun wa innahum la kadibuna maa ngi gën ci yàlla ne moom moo wax dëgg ñoom ñooy naam abu darin na ko léegi danga may xaar fii wutuma ci sama yaay man ma dem xoolal sama bopp abu fa tabaaftu rajulan minhum mu xool kim yaakaar na moo gën a néew doole mu dem ci moom laaj ko ne ko ayna hada alladi tadcuunahu saabe ki ngeen di wax ne dafa jeng fekk ku àndaan ak yonent bi wala yonent bi ci boppam dañ leen a tuddee na dañoo jeng mu ne ko kooku ngeen ñu tuddee saabe anamu abu ne waa ji yuuxu rek comme ku yuuxu sàcc joxoñ ma ne a saabe yëguma lu dul waa màkka yépp jooru ci sama kaw lépp luy yax lépp luy xeer ci màkka jël nañ ko sànni ma ko ba ma xam ñu dem foog ne dee naa ñu dem bàyyi ma fa bi ma ximmali koo ma jug ne nee na boo ma gisee maa ngi mel ni statue bu rouge bu xonq ndax deret amul fenn ci sama yaram fooy laal fu amul deret ma dem ba ca zam-zam ma raxas deret ji naan ca gis benn pax bu nekk foofu ci ruq boo xam ne yaakaar naa ne kenn du ma fa fekk ma dugg foofu nekk fa dëkk fa ci Zamzam mu ne mu ngi nettali jarbaata ne ko wa laqad labistu yabna axi thalathina bayna yawmin wa laylatin ma li taamun illa maau zamzam fa samintu xatta takassarat ukanu batni wa ma ajidu ala kabidi soxfata juwa mi ne ko toog naa fa ñeen fukki fan weer wu mat sëkk pepp lekk dugg ci sama biir bi zam-zam rek laa am moom laay naan waaye musuma yëg xiif ci sama biir bi ew foofu dama jël poids ba mujj pata ba sama biir bi di lange mu ne ci niñ nekk noonu am benn guddi boo xam ne yàlla dafa mel ni dafa am lum sànni waa Màkka ñoom ñëpp ñu nelaw kenn ñëw ci kaaba fi ma toog noonu ma gis yonent bi sallallahu alayhi wa dugg si ànd ak abu bakrin siddiq radiallahu anhu bi yonent bi ñëwee ba àgg ci aswad foon xajarul aswad tawaaf ñaari yoon julli ñëw ba fi ma nekkee mu julli foofu ñaar rakk maa koy xool ba mu salma ne ko assalaamu aleyka mu ne wa aleyka wa aleyka wa rahmatullah yonent bi fay ko ne bi yow la kan mi ne ko min xifaar man de xifaar laa jógee mu ne yonent fa ahwa bi yadihi fa wadaa asaabiahu ala dimati yonent bi sëgg jël ay baaraamam teg ci jëm mel ni daal am na lu muy àggali lu mu doon def bi mu paree mu yëkkatiwaat bopp mundu mata kunta huna depuis kañ nga nekk fi mu ne ko kuntu ha mundu salaasina bayna laylatin wa mu ne ko maa ngi fii depuis ñeent fukki guddi weer mu ne ko kan moo la doon jox lekk mu ne ko wallaay kenn joxuma lekk zam-zam bii rek laa doon naan waaye loolu ci xamut mooy ne musumaa yëg xiif ci sama biir bi te itam gis nga ni damaa jël poids ba sama biir baa ngi ngi lang yonent bi ne ko wax nga dëgg innaha mubarakatun innaha taamu tumin wa shifaau suqmin wax nga dëgg maaw ndoxam zam-zam ndox mu barkele woo xam ne lépp lu la lekk mën a jox ndox yi zam mën na la ko jox te itam daf cee teg ne dafay saafara ay jàngoro loo coono boobu yépp abu darin toggoo ngir rek mën a dem xam ndax li ko rakkam ji wax dëgg laam du dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy oote dëgg laam du dëgg loolu moo lay wan ne xam-xam coono moo koy maye góorgóorlu moo koy maye muñ moo koy maye muñ xiif muñ mar muñ rafle muñ sori say mbokk sori say waa kër muñ ñàkk yooyu yëpp danga koy muñ ngir xam-xam man laa ñëwal te boo ko muñee li arab yi di wax gamaratun summa yanjalina ay xat-xat yu gàtt la dafay jeex su fekkee ne muñoon nga nag bu jeexee inda sabaaxi yaxmadul qawmu sura su boobaa bànneex rek moo ci tegu kawe moo ci tegu yëkkatiku moo ci tegu al ilmu ni ko waaji waxee awaluhu murrun madaqatuhu lakinna axirahu axla min al asali nee na xam-xam booy tàmbali di ko ut bees dafa weex dafa naqadi waaye mujj ga mujj gu neex la moo dàq lem ibnu abi jamrata wax na jël nettali ci sëriñam abul xasan zayaat ne ida taraka taalibul ilmi listigaala yowman fa ka annama adaa sana wa ida taraka listigaala yowmayni fa ka annama adaa sanatayn wa ida taraka listigaala talaatata ayaamin lam yaji minhu shay mu ne kii jàng bu gëjee nafat bu gëjee jàng benn fan mel na ni sànq na at ci dundam bu bàyyee ñaari fan sànq na ñaari at bu bàyyee ñetti fan nag nee na kooku moom bul yaakaar ci moom dara ci xam-xam bàyyi indi na xissa bi ak uute bu oyof rek ci boo demee ci téereem tabsaratul anam da nga ko fa fekk tariqa tijaan bii ñu nekk sax daf lay jàngal engagement daf lay jàngal discipline ndax charte yi ñuy njëkk jox ki koy sàkku mooy boo ko jàppee doo ko bàyyi doo ko booleeg beneen bu duut moom doo ziyaare wàllu yi woo xam ne duut tijaan ngir sàkku ci moom tëbb doo ànd ak koo xam ne xolam ajuwut ci cheikh waxuma nag koo xam ne dafay weddi cheikh boobu moom moo gën a bon yooyu yëpp li ci taalibe bi di jàngee mooy yar boppam ci am fulla dëggu am dogu am yéene ju sell am euh, jom sori li nga xam ne mooy caaxaan ak irresponsabilité ndax yeneen eh, imaamu Shafii dafay wax ne shakawtu ila wakiin suua xifdi fa arshadani ila tarki almacaasi wa axbarani bi anna alcilma nuurun wa nuuru llahi la yuctaa li caasi imaamu Shafii ne dafa musa dem ci wakiya di ko jàmbatal ne moom mokkal yombut ko imaam Shafii moomu di jàmbat ne mokkal yombut ko mooy ki la wax feneen ne bu daan jàng téere dafay jël loxoom nëbbee ko beneen page bi ndax bu ko njëkkee liir moom lay njëkk a mokkal lu mu liir rek mokkal ko te lu mokkal du ko fàtte kooku mooy jàmbat mokkal mu dem ci waqi wax ko ko waqi na ko xam-xam bu la ci kenn nax ku ko bëgg am dafay sori lu neexul yàlla ndax xam-xam leer la te leer yàlla du ko jox koo xam ne dafa génn topp imaamu Shafii moomu desene na yoon wi nga xam ne képp kuy sàkku xam-xam ci ci la war a jaar pour am li nga xam ne moom lay sàkku desene na ko ci ñaari bayt axi lan tanaala al ilma illa bi sittatin sa umbika an tafsiliha bi bayaani ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان nee na juróom benn yi mooy moo mën a tax yow ngi sàkku xam-xam nga am la ngay sàkku bi ci njëkk mooy nga am xel bu mën a jàpp mën a takk koo xam ne xelam ta takk dara mënta jàpp dara kooku lu sonn sonn sonn mënta am xam-xam ñaareel bi mooy nga xër ci li ngay ut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man humaani laa yashbaani ñaar ñu am na ñaar ñu tëfal ñoo xam ne duñ suur mukk mooy kii ut xaalis ak kuy ut xam-xam kuy ut xaalis nu xaalis bi gën a yokkee bëgg na kuy ut xam-xam itam noonu wajtihaadun góorgóorlu itam mënta ñàkk ci ku ut xam-xam ndax xam-xam duñ ko amee noflaay duñ ko amee nalaw duñ ko amee naxante duñ ko amee taswiif tey danaa def lii suba bu suba incha allah danaa jàng bu subaa nga ne gannaaw suba dana jàng waa ji waxoon na ne ida kaana yudika xarrul masif wa yubsul xarifi wa bardu shita wa yulhika xusnu zamani rabii fa axduka lil ilmi qul li mata fekkee dafa nawet nga ne nawet bee xaaral bu suuf ma dem bu sedd ñëwee nga ne sedd bee bu sedd jeexee danaa dem jàng bu noor ñëwee nga ne tàngoor beta tax bu tàngoor bi jeexee danaa dem jàng bu lool yi jotee nga ne ah fleur yee ni mu rafetee damay bëgg di génn di fexal sama xol duufal samay bët waaye bu jeexee danaa dem jàng nee na xamut yow kañ ngay jàng ndax ñeenti saison yooyu rek ñoo am ci àddina bi bulga laa budda min bulgatin bulga mooy loo mën a fajee sa soxla damaa bëgg a jàngi dëkk sàngam laa bëgg a jànge ma am paas wala ma am ku ma paasal ma dem foofu téere bii laa bëgg jàng ma am lu ma ko jëndee wala ma am koo xam ne mën na ma koo jëndal loolu mooy buxatu bu soxbatu ustaazin mënoo ñàkk am koo xam ne moo lay gindi moo lay jàngal muy ustaaz ndax dañuy wax ne man laa ustaaza lahu fa ustaazuhu sheytaan képp koo xam ne demoo ci ab jàngalekat mu jàngal la su boobaa yow moo lay jàngal ku yaroo ci kër boo génnee mbedd mi yar la waqulu zamani nit mënta jàng ci lu diir bu gàtt dafa jàng xam-xam dëgg-dëgg dafa laaj sax ci dafa laaj yàgg ci comme engagement bi nga xam ne moom la mus yonent yàlla Moussa am xat aw am di yaxuqu ban na la jaral nga toog ay at na la jaral nga toog sa dund yëpp te noonu na mag ñi daan jàngee min al mahdi ila al lahdi min al mahbarati su boobaa loolu moo mën a may xam-xam uteeg li xew tey rawatina ci kër ñi tuddee ay sëriñ jàng benn risaala mokkal benn xasida kaalawu fatt ni ñu wël wël wël wël te xamoo dara li ngay wax dara baaxu ci loolu yàqu-yàqu yu bari yu am tey loolu bokk na ci li ko indi ñaareeli pàcc bi pàcc bu mujj bi mooy gannaaw bi nga xamee ne nit góorgóorlu na ba am xam-xam war naa góorgóorlu itam ba jëfee xam-xam boobu mu am bokk na ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan inni a'udhu bika min ilmin la yanfa mu dadaan muslu yàlla ci xam-xam boo xam ne du jëriñ te xam-xam bu dul jëriñ mooy xam-xam boo xam ne ki ko xam jëfeewu ko Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nee na كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن فأوتينا العلم والعمل mu ne daanuñ passé mukk fukki aaya bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ku ci nekk ci ñun fukki aaya ngay jël boo ko jëlee nga jàng ko ba mokkal ko dem jëfee li ci nekk yépp ci ay atte ak i ndigal moo tax bi ñu yàllay jox daf ñoo joxandoo ñaar daf ñoo jox xam-xam jox ñu itam jëf ñu ne xam-xam al ilmu yunaadi al amala fa in ajaaba wa illa irtaxal wal ilmu ka shajarati wal amalu ka samarati wala samarata illa bi shajara wala xayra fi shajaratin la samarata laha ñu ne xam-xam heure bu nekk mi ngi oo jëf su ko jëf uysee mu toog su ko jëf uysiwul mu dem ndax bu dee xam-xam garab la meññetu garab gi mooy jëf meññet mënta am te garab amul waaye garab bu amul meññet itam njëriñam bëriwul xam-xam lii tax mu jariñ mooy boromam jëfee ko ndax borom xam-xam wala kiy sàkku xam-xam ki nga xam ne jëfeewut lim xam dafay dawloo nit ñi boppam dawloo nit ñi xam-xamam misaal bi gën a ñaaw bi rot ci alquran yàlla nga ko jagleel ñi nga xam ne dañ leen a jox xam-xam te jëfewuñ ko mathalu alladina xamilu tawrata summa lam yaxmiluha ka mathali lximaari yaxmilu asfara yàlla ne yahud yi nga xam ne yàlla daf leen sant ñu jëfee li nekk ci tawraat ñu bañ yàlla niro la leen ne ñu ngi mel ni ay mbaam yàlla mi nga xam ne moo bëgg nit bind ko teral ko nit kooku su sàgganee dem ba yàlla moom ak ni mu ko bëggee ak ni mu ko fonkee di ko naral ak mbaam dëgg-dëgg loolu mooy mooy mooy mooy doye bi mooy dayob toroxtaange yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ yàlla may xam-xam buy jëriñ yàlla yàlla xiir ci jëfee xam-xam boobu yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam Hmm? waaw yal na yàlla barkeel bakk bi yal na yàlla def fi barke Medina barke Tayba ñi nga xam ne ñu ngi fi taxawee fi di ko dundal ak alquran di ko dundal ak diine yal na yàlla yokku leen ci zahir yokku leen ci baatin ñi fi teew ñëpp yal na yàlla faj seen i aajo yàlla jox leen seen i càkkuteef ak seen i bëgg-bëgg wa ma dalika ala allahi bi aziz ñu ngi jéggalu ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi fii sudee guddal nañ di sant ñëpp di gërëm ñëpp dañoo amoon bi Serigne Daara Aqibou di oote fekk nañu sant ma tey gàmmu waaye dama ne jotaay bi moom comme ni ko Serigne Daara Aqibou waxee woon daaw ma nangu ko sama jotaay la moo tax lépp lu mën a xew danaa ñëw teew fii asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa